banque la ñu dem lepp fa un million ci tabaski bi ni ñew jënd suñu bagages ba mu fess parce que jënd nañ 2 tonnes jënd nañu melon ñeen fukki parce que ñeen fu mango ñeen fukki junni ak juróom benn booba ta mu ngi jar paan 13500 ñu jënd nañ fukki paan ak juroom muy ñeen fukki junni ak juroom ben jënd banana jënd pomme mom da lo xalaat ci fruit jënd lingom jënd mandarine jënd lepp ñu ñëw sunu suñuy taabal ba mu fees du pomme du banaana du mandarine du orange un million bi daal dana pëng ba ay quatre heures yooyu sama téléphone sonné ma ne allo ami lan la mooy xale bii fi taa mu ne ma am jeeg kaay si tëli bi ma ne ko ami gaawe ma maa ngi dee xew si tëli bi mu na ma ñëwal rek sa jànq bi dafa daanu ma ne ko daanu ba jàmm la mu na ma sa place mooy tàq ba sa jànq bi daanu na bi nu ñëwee tamit war a àndal gendarme yi nag kenn du laal wóorul ndax mën ngaa àndal affaire bi kalaate te bu boobaa beneen musiba lay am na bagage bi yàq moo gën nit ki yàq ba tey nag ñoo ngi nii toog yoruñu mënuñu banque léegi la ma téléphoné fay bi ma ne ko man dee maa ngi nii muñal ma rek